waaw balaa ma def dara damay sant yàlla di julli si Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur ak euh, bépp nit boo xamee ni jàppale nga ñu si lii ñu doon ñaaxtu pour jot suñu àq ak suñu yelleef waaw parce que bi nga xamee ni def nañ réunion yu bare ak waxtaan yu bare ak ñin ko séqal yàlla def na ni euh, mujjantal gi mooy que ni am na solution yoo am nañ solution boo xamee ni xaatim nun kayit ga am na protocole dañ ko xaatim boo boo xam dafay permettre daal lii ñu ñu ñu mu jeexal ko benn yoon ñu jot suñu xaalis delluwaat suñuy kër ba nga xamee ni euh, depuis démb si àllarba bi comme ni ñu ko waxee woon ñi nga xamee ni ñoo àll traité 2018 commencé nañ jot seen xaalis te su neexee yàlla balaa lundi ñëpp nan jot ndaxte tey tey tey bi ma xëyee xam naa ni ñaari nit rek ñoo si des kenn ki dafa nekkul si euh, sur place nii mais keneen ki nee si bëccëg bi nee na jàll si kàttanu yàlla bon donc euh, léegi altine bii di ñëw ñi nga xamee ni ñoo à la traité 2019 ñoom ñoo war a commencé jot mooy altine euh, juróom ñaari fan si weer wii altine juróom fukki fan ak euh, ñeent si weer wi ñi nga xamee ñoo retraité deux mille vingt ñoom ñoo war a commencé ñooñu sunu paree nag euh, moom mooy tuuru ñi nga xamee ni seen i waajur ak seen i borom kër dañoo génn àddina mooy daal les famille héritières ñoom ñooy mujje ñoom lañu kii si kàttanu yàlla. mën nañ koo xayma ak euh, juróom-benn téeméeri millions waaw si si si loolu daal lay lay lay si xaalis yëpp loolu lay tourné. xaalis bi parce que am na nag euh, xaalis bi am na loo xam ne jot nañu ko see avance parce que ay mag nan bi nga xamee ni mbas mi dugg na fi te am si ñoo xamee ni ñoom seen yaram danoo sutante te danoo war a fayeeku euh, mu am leneen lu si rax mooy que ni IPRES bi nga xamee ni moo yor léegi suñuy solde dafa jékki-jékki ne euh, dootul prise en charge médical bi moo naam dootul jël kenn en charge ba jëmmi jamono pour sooy faju ji hôpital donc euh, te amatuñu woon couverture médical loolu tax ñu waxtaan ak ñoom Euh, direction bi en l'occurrence euh, kii monsieur Kibili Touré ne moom ay partenaire am banques yi nangu nañ ko abal loo xamee ni mën nañu ko kii pour ñu jéem a sax jàpp si loolu en attendant bon bi ñu waxtaan kook suñu camarades yi tim dañ koo rafetlu parce que am na si ñoo xamee ne dan dañ koo soxla ñoo xamee ni dañ waroon subir ay opération ñoo xamee ni dañoo seen ñi leen luye kër dañ leen taxaw maanaam daal problème yi bari taxawoon te bi ñu jotee xaalis bi am na lu ñu si saafara te nag alal du faj dee gàcce rek lay faj waaw looloo taxoon ñu jël ko. waaw xaalis bi moom ñi génn àddina ñoom si nañ bokk si nañ bokk parce que ñooñu ñun suñ leen taxawul ba ñu fay leen seen xaalis defuñu suñu warugar parce que yaakaar nañ ni ñun ñii suñ leen jiitu woon ñoom noonu nañuy taxawoo. parce que donc ñun dañ leen di taxaw te dugal nañ leen si boole nañ leen si mooy li ma la wax nii su waa 2000 ñi nga xamee ñoo à traité 2020 suñu jaaree te ñoom seen passage mu ngi commencé altine fukki fan ñeent ñooñu suñu leen jeexalee rek dañuy attaqué ñi nga xamee ni moom mooy euh, ñi nga seen i waajur ak seen i jëkkër danoo génn àddina d'ailleurs bi ñuy joxe avance yi sax am na si ñooñu famille yoo xamee ne dañ ko soxla woon dañ leen boole si avance bi jox leen jox leen ñoom tim comme li ñu jot ñun si xaalis un million ñu jot leen un million comme ñoom pour wane ni ñu boole nañ leen si. Euh, xam nga semaine de fer ñun bi ñu màggee ba ñuy jël euh, di dugal liggéey dan fee fekk benn slogan boo xam nañ ñi doon kaa wax cheminot cheminot un jour cheminot pour toujours mooy cheminot benn fan cheminot ba ba ngay dee donc ñun ba ba ñuy dee ay cheminot ñun te saa yu nu soxlaa. saa yu nu soxlaa si mburu chemin de fer danañ ñëw wuyu si leen luy nag suqali chemin de fer rek nañ si mën a dugg waaye lu loo xamee ni dafa yóbbu chemin si lu mucc ayib moom euh, loolu nañ mën mais luy yàq chemin de fer bokkuñu si. Euh, saxaar yi moom mën nañ commencé daw saxaar yi mën nañ commencé daw ndaxte lan waxoon si protocole bi nu xaatimoon ñun ñoom commencé nañ ko respecté te ñun tim lañ leen waxoon ne leen soo leen commencé fay. nit ki njëkk a jàll suñ ko fayee rek danañ lever le mot d'ordre de grève ñoom ñu def seen wàll ñun ñu def suñu wàll waaw. je Amadou Lamine Diagne cheminot en retraite chef de gare en retraite depuis 2019 donc nous je fais partie des représentants des cheminots en retraite. Euh, je vous fais savoir d'abord euh, que ça fait longtemps que euh, nous courons derrière euh, cette demande, c'est-à-dire il y a 7 à 8 mois, on était dans un calvaire euh, qu'on peut pas expliquer. Euh, on avait vu Youm euh, par l'intermédiaire du directeur du chemin de fer, monsieur Kibili, qui nous a facilité cette tâche pour qu'on puisse recevoir nos dus. Euh, donc on peut dire Dieu merci. Nous, avons commencé à récupérer, à récupérer nos doutes depuis, depuis Donc c'est par portion que nous procédons. Donc ce qu'on peut dire pour le moment, nous avons commencé apercevoir, apercevoir nos dits. Voilà, pour le moment, c'est la réponse qui est exacte. Tourner autour de 101 à 102 personnes. Euh, euh, à partir de 10 à 15 personnes, des lots de 10 à 15. Donc d'abord, on, on, a procédé par le, ceux, ceux qui sont partis en 2018, ceux qui sont partis en 2019 suivront Ensuite, euh, la troisième phase, ce sera ceux qui sont partis en 2020. Mmh. Peut-être grève, c'est trop dire, parce que compte, vu notre âge, on a 60 ans, 61 ans et 62 ans. Euh, nous, on, on met le mot grève entre parenthèses parce que c'est une grève très passive. On n'a pas jeté de pierre, on n'a pas troublé l'ordre public, etc. Nous sommes des personnes du troisième âge, nous nous sommes regroupés à la gare de Thiès euh, passivement. Ensuite, euh, il faut reconnaître aussi qu'il n'y a que le maire Talisila qui est venu nous voir. En dehors de lui, euh, il y a d'autres autorités religieuses qui sont passées à la gare Ensuite, euh, au passage, on les remercie de cette action, de leur euh, reconnaissance envers ce mouvement des retraités qui n'ont pas été payés. Voilà. Donc, le, montant, le montant global, ça tournait autour de 600, 600 millions à peu près. Mais il faut reconnaître que nous avions reçu 1 million, tout à fait au début, lorsque il y avait des besoins d'urgence qu'il fallait régler parce qu'il y avait des malades parmi nous, il y avait certains qui n'arrivaient pas à payer le loyer et j'en passe. Donc nous nous sommes concertés pour voir est-ce qu'on pouvait prendre ou pas. Donc la majorité était d'accord sur ce point. Donc on a pu régler ce problème. Mais depuis, euh, depuis ça, depuis le temps qu'on nous avions reçu 1 million, nous sommes restés deux mois encore. C'est-à-dire l'attente a duré au moins 7 à 8 mois. Mais ce que voulez c'est normal, euh, c'est très normal. Vous revendiquez quelque chose, on vous satisfait. Donc il n'y a plus possibilité de troubler ou de faire autre chose.